alhamdulilahi waxda wasalaatu wasalaamu ala man laa nabiya baad amma baad assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli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 nu ñu ko daan ñaane saa su ne rek yàlla nañu sàmmal suñu imaan rafetalal ñu ko te ba ko ñun moom borom bi subhaanahu wa taala macha allahu di njëkkee rek di wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun di leen jaal di jaal jullit yépp ay kilifa yu tedd wala suñu bàyyi bu ràññeeku woon bu baax a baax a baax ñu ko doon wax alxaaji daam Diop Mansour kenn ku ne xamoon ko ci réew mi xamoon ko ci njàmbaaram xamoon ko ci góor góorgóorloom waaye xamoon ko ci taxawaayam macha allahu surtout nag ci boole jullit yi ngir ñu nekk benn seytaane bañ a am cër seen diggante macha allahu loolu di ràññeekoon woon na ci lool la jam Jóob Mansour kenn ku ne xamoon na ko it ci yëngatoom ci réew mi bokkoon ci ñu fi ràññeewoon ci daan dooleem waaye dimbali ñu bare bare bare bari ba ñu am lu ñu daane seen doole macha allahu taxaw leen ci wàllu liggéey bari na lool ñoo xam ne ñu ngi tuur seen ñaq di dundal seen njaboot di dundal seeni jàmm te yàllaa ngi ko jaarale woon ci loxo moom alxaaji dam macha allah ñu ràññee woon ko lool it ci màkkatal mukarrama ci taxawaayam macha allah jàmbaar yi màkk ak madina wallahi bari na ko añ bi suba arafa yaa ngi añ ci añub alxaaji Dame Diop Mansour aju ko ci ni kat ñii laa àndal ci sama ñii laa yóbbu ñi ñooy GIE bi ma àndal ñi ñooy pèlerin yi nga xamante ne ñoo dem ci suñu agence déedéet waaye képp ku fay julli rek tew sa wërsëg nekk ci ñam wam fay joxe rek jëfandiku nga ci man de kenn laa ci daaw day añ ba ma añee arafa ci añ yi mu indi woon ca arafa ca la bokk macha allah te lii ma wax moo valable ci ñeneen valable ci ñeneen macha allah yàlla nañ ko yàlla fayal macha allah mu doon jàmbaar it macha allah ci tariqa Cheikh Ahmed Tijani waaye doonoon jàmbaar ci kër Cheikh Seydi Hadj Malick radiyallahu anhu ñu jaale ko xalifa bi bu baax nag macha allah sëriñ Babacar Sy Mansour jaale ko alxadra almalikiya bilkul lii ñun ñëpp ñu jaale leen ko kenn ku si nekk macha allah sa yëg-yëg ci mbir mi feeñ na. keroog boo demee ca kër Ngunta jóob maam Ngunta nga xam ne moo doon maamam jooju nga xam ne muqaddamu Cheikh El Hadj Malick la boo fa demee keroog ba gis bis ba na mu demee nga xam ne wax dëgg yàlla bàyyi nañ ko xel ma jaale ko it waa incha allahu xam nga bu ne Serigne El Hadj Dame Diop rek Mansour lañ ciy teg digganteem ak Serigne Mansour ràññeeku woon lool kon ñu jaale ko Serigne Cheikh Ahmed Tidiane si di xalifa bu Serigne Mouhamadul Mansour macha allah ndeysaan fekk ko ci réew mi waaye kenn ku ne xam na yëg-yëg ba mu am. waaye wax dëgg yàlla ñu kon dalal xelam ni ko alxaaji Habib macha allah taxawul na la bu baax a baax a baax sëriñ Moustapha Sy macha allah mu bu sëriñ Abdoul Aziz Sy Al Amine xam ñoom ñëpp xamoon nañ ni seen bàyyi dem na keroog boo leen gisee xam ni wax dëgg yàlla ñu ngi ci bu baax. Ahmada macha allah sëriñ Ahmada mu sëriñ Moustapha Sy Jamil macha allah moom it taxaw daf yitte jullee ko julli wu gën a rafet. sëriñ Habib ànd ak ñun ca armeel ya toog ci suuf taxawaay yëpp gis nañ ko yàlla yàlla fay kon nag ñu ngi koy jaal macha allah waa kër maam Gunta jóob yëpp rek wax dëgg yàlla jaal ko nag njabooti boppam ñoom ñëpp xam nañ leen waaye ràññee nañ ci macha allah suñu Moodu Mbène ràññee nañ ci sëñ As Diop suñu soppe suñu xarit ràññee nañ ci Adja ay dembeen ak ñoom ñëpp nag macha allah xam nañ leen jaal nañ leen ko jaal ko it macha allah njabootam gi yëpp du ñooñu rek waa kër rakkam jooju nga xamante ni alxaj Cheikh Diop Gunta nga xam ne ba mu génnee àdduna rek laa ngay yëg ni lu baree baree bari jóge ne ci alaaj daam macha allah ju jaal ko njabootam yépp ñoom it macha allah ñu ma yàlla yàlla jéggal ko yàlla yàlla yërëm ko waaye nag ñu baal ma de tey dafa daje rek suñu kaw jaale it bu baax a baax a baax jullit yépp aji dem yépp nag kenn ko ci nekk yàlla yàlla jéggal leen yàlla yàlla yërëm leen yàlla yàlla xare leen àjjana barke alquranul karim yal na yàlla dëkkale leen ci àjjana yu kawe ya yu màgg ya macha allah moom borom bi subhanahu loolu moom rek moo ko mën moo ko mën moo yor àjjana yooyu yàlla na leen ko defal macha allah mbokk yi ñu ànd ak yéen nag seen tafsirul quran bii nga xamante ni moom lañu dooraat ñaareelu door di ci ànd ak yéen ñëpp nag wala ñetteelu kaamil bi bi ñu fi mujj ci tafsir ngeen bal ñu li taxoon semaine bee am ngeen am rediffusion li ko waraloon rek mooy dëj boobu yitte yi ñu woon ak yu mel noonu macha allah kon ñu yemoon ci juróom-ñaari aaya ci suratul baqara kon tey ñu war a jël juróom-ñetteelu aaya dama leen wax nag ni baqara ni mu doore mooy dafa ñëw di indi lu am solo lu am solo mooy dafa wax almuttaqiina mooy ñan ñan ko mooy ñan mun la alladina yuminuuna bil xaybi wa yuqimuuna alsalaa wa mimma razaqnaahum yunfiquun walladina yuminuuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika wa bil axirati hum yuqinuun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika hum almuflixuun ñëw ci alkaafiruun ni inna alladina kafaru sawaun alayhim a andartahum am lam tundirhum laa yuminuun lu tax xatama allahu ala qulubihim wa ala samcihim wa ala absaarihim xishaawa wa lahum adaabun adiim foofu la yem kon ñii ñëpp ku ci nekk cité na la nommément ñu xam ñi muy wax ñi ragal yàlla wax na la nii mooy seeni melokaan yi wane ni ragal nañ yàlla ñi nga xamante ni it macha allahu dañu doy waar it wax na la seeni mbir ak li waral seeni comportement yooyu ñu mel macha allah ku ci nekk kon leeral na ko muy yéefar yi tey nag mu war a dugg ci juróom-ñetteelu aaya ci seen saar di suratul baqara waaye indi ci ñeneen ñi mu indi nag boo xoolee ni borom bi di waxee ci ñoom dangay yëg ni daal borom bi dafa mel ni sax da leen a jéppi abu ñii borom bi di doore tafsir bi tey sooy déglu ne yàlla di wax seeni mbir da ngay yëg ni suñu borom daf leen a jéppi yàlla nañu yàlla musal ci njéppiteg suñu borom parce que. yenn saa yi nit boo ko boo ko jéppee dëgg booy wax ci moom da koy ignorer sax da nga koy ignorer maanaam da sax bu doo sax bëgg a tudd turam ndax jullit da leen a tudd ñu ragal yàlla ñu xam nit ñi la yéefar yi nga xam ne dañoo assumer seen responsabilité wane ni ñoom gëmuñu da leen a feeñal mu leer nit ñi aussi gëmuñu mais nag jetteel bii nag ñoom waxul sax ñan la mais su la ko limalee ba pare yow yaay xam ñan la bëgg a wax loolu mooy secret ñetteelu xaaj bii muy bëgg a wax bi mu waxee ci gaa yi gëm wax ci gaa yi wedd dafa ñëw rek yu wa minan mu ne wa minan naasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil axir waaye yàlla nii wa maa hum bi muminin yàlla ni na am na ci nit ñi am na ñenn ci nit ñi kon ñoom nekk nu nit ñëpp mais ñenn lañ ci nit ñi man yaquulu am na ci ñoom ñoo xamante ne dañuy wax naan amanna billah ñun de gëm nañu yàlla di ko wax rek ak seen làmmiñ wu rëy ràññee nañ ci abdullahi ibnu bay ibnu salul ràññee nañ ci maatab ibnu qushayr jadd ibnu qays ak seeni kem mooy les hypocrites naafiq yu bon yooyu nga xamante ni lu naqaree lislaam ci ñoom la jaar parce islam amul problème mu jàkkaarloo ak ennemi bi nga xam ne ragalul feeñal ni ko ni moom da koo bañ mu jàkkaarloog moom jàmmaarloog moom lu xew ñu xam ne loolu la waaye problème bi am du loolu ñi am problème mooy ñi nga xam ne dañuy sol li naan li naan dañuy dañuy jël deru deru deru bukki ah euh, da da du xaw ma nu ko wolof di waxee rek jël der boo xamante ne dañ koy teg seen kaw nga defe ni loolu lañ fekk ni lu gën a garaaw loolu lañ baaxul mbokk yi loolu dafa jar a bàyyi xel de mooy ñi nga xamante ni dañ naan aman naa billahi wa bil yawmil axir nee na am nañ ci ñoom ñoo xam ne dañ naan gëm nañ yàlla <laughs> gëm yàlla du wax de gëm yàlla du kàddu gooy wax rek moo tax boroom xam-xam ba ni la woon laysa al imaanu bi tamanni wala bi taxalli walakin maa waqara fi l qalbi wa saddaqahu l amal nee na ngëm yàlla nekkul wax jooy wax nii rek de nekkul it mébét gooy mébét ak col gooy sol ñu naan kii kat colam gi mu sol wane na ni boo xoolee solom gi xam ni kii ko am imaan la nee na nekkul lool de nekkul takkaay booy takk de nekkul sikkim booy bàyyi de nekkul kaala gooy def de nekkul laxasu gooy déedéet du loolu mooy imaan déedéet nekkul dox gooy dox di yoggi yoggi de déedéet yooyu yëpp dabba du imaan mu ne kon du ay ay takkaay ñooy tax ñu ñu mën a ràññee ni yow am nga iman mu ni déedéet walakin waaye nee na bu lay wax lan mooy iman nee na maa waqara fil bi day nekk ci sa xol wa saddaqahu amal boo jëfee ñu xam ne yow li nekk ci sa xol moo feeñ ci sa jëf loolooy iman c'est très important c'est très important pour ñu xam lan mooy iman yow bu fekkente ni yow ni nga gëm nga yàlla te bu ne julli nga ni julliwoo gëm naa yàlla du ma gëm naa yàlla du ma joxe azaka gëm naa yàlla seen makk yi ay caaxaan la yàq sama xaalis du ma ko ci def gëm naa yàlla du ma dimbali kenn yow bu dee kon danga ko wax ci sa làmmiñ amul solo ndax arab nee na lisaanul xaali asdaqu min lisaanil maqaal làmmiñ bii jëf te du wax moo ëpp solo fuuf yor sa làmmiñ di wax te doo def dara amul benn sens kon ah imaan du ay waxi kese di imaan du ay waxi kese di waaye nee na ci xol lay ne waaye boo jëfee rek ñu xam ne ku am iman jëf na ak am solo mbokk yi asxaabu rasuli sallallahu alayhi wa sallam saxaaba yu tedd yu mag yooyu nga xam ne ñoom la ñoom la yàlla naan min almuminina rijalun sadaqu ma ahadullah alayhi fa minhum man qada nahba wa minhum man yantadir wa ma baddalu tabdilan saxaaba yaa ngoog mbokk yi jàmbaar yooyu yonente bi daan wax naan asxaabi kan nujum bi ayihum muqtadaytum muhtadaytum sama saxaaba yi comme ay biddéew lañu ku ngeen ci topp rek mu niital leen ngeen dem dabba danga nga daan gis saxaaba bu xool mbokkam rek ni koy yaa habibi yaa axi fillah taala nu'min saa ñëwal ñu gëm une heure de ñëwal rek ñu gëm tuuti yëg ni suñu imaan mu ngi dem kon imaan mbokk yi du ay wax de yàlla nag feeñal ay nit ñu muy toroxal fii ba ñëpp xam ni ku yor melokaan bi baaxoo mu ne am na ci nit ñi ñoo xamante ni dan ni ooy aman naa ñu nag gëm nañu billaahi ci yàlla gis nga jóge foofu ni wabil yawmil axiri gëm nañu it alaaxira al iman an tumina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil axir wa tumina bil qadari xayri wa sharri mooy dangay gëm yàlla gëm malaaka yi gëm yonent yi gëm téere yi gëm yowmal qiyaam gëm dogal waaye ñoom dañu jóg départ ni gëm nañ yàlla gëm nañ yowmal yowmal qiyaam ah waaw lu tax lu tax waxuñu gëm nañ yonent yi lu wax ñu génne ci yooyu yëpp yàlla ni am na yoo xam ne loolu la ñuy wax gëm nañ yàlla gëm nañ yowmal xiyam alaaxira waaw ala alaaxira lañ koo tuddee li tax ñu tudde ko loolu muy bis bu mujj ba mooy bis la boo xamante ni bis boo ci xësee ba jógee ci at dunya jëm ci alaaxira bis la boo xamante ni aaxirul ayyaam waaw mooy yowmal qiyam boo fa xasee ba yegg bis ya moom nekkatul lu ñuy takkati ak di ko xam jeex na day continuer rek pour l'éternité la wala ñu ko bis bu mujj ba bu jàllee imma nga teeri àjjana soxlaatoo ay calendrier soxlaatoo timing soxlaatoo emploi de temps ndax toujours yow ci li li la neex rek ngay nekk la lahum ma yashaa'una fiihaa naa ma maziid yow mi jëm àjjana yow mi jëm safaraat soxlaatoo ko ndax dootoo amati dootoo talati sax rek la ab temps déedéet xam nga yow looy régler problème yu métti yi nga nekk fitna yi nga nekk loolu moo lay doy soxla mu ne kon am na ñuy wax loolu waaye nag yàlla nee na man mi xam xam naa ne mu mu mi nii na ñoom gëmuñu yàlla weer na leen de allahu akbar yàlla nee na ñii gëmuñu maanaam seen wax ju bari ji bu la rawee ci ñoom ba nga defee ni gëm nañu yaa ngi ci erreur ndax gëmuñu dara ci li ñuy wax yàlla ñii luy seen melokaan. mu ne haay nee na ñooy yuxaadicuuna allaha walladina amanu dañuy jéem a nax yàlla ak gaa yi gëm yàlla ñoom la ñuy jéem a nax nee nañu dañu leen di jéema nax waaye loolu doxul <clears throat> an nifaaq moo bon muy hypocrisie mooy di jéem a nax nit ki saa nit dàbba romb la <laughs> hey dàbba maa la bëgg jël la tey sama waaj sama doomu ndey ji sama xol bi sama lii taf la ci dënnam sax fekk ni yow rek la bañ yow rek la bañ li muy wane ak li nekk du benn yow rek la bañ bu sañoon nga dee su sañoon nga torox bu sañoon nga sonn waaye loolu mën nañ koo naxantee mais duñu nax suñu borom gars yi nag loolu lañ doon jéem a def yàlla nag ni yonente bi sallallahu alayhi wa ñoom de dañuy jéem a nax yàlla ak ko bi ak gaa yi gëm ak yàlla ñoom lañuy ñuy nax ci di def di wane loo xamante ni wuute na ak li nekk ci ñoom bu baax a baax a baax waaye muñ sonn buñ sonn ndax wa maa na illa anfusa wa maa yashurun ñoom li ñu xamul mooy seen bopp keese la ñuy nax dañu mel ni ku jaaxaan di tuur ndox lépp ci sa kaw lay delluwaat munu ñoom xamuñu ni ñun naxuñu ñu naxuñu seen borom ndax yàlla kenn mënu ko nax naxuñu gaa yi gëm yàlla ndax ñoom yàlla la ñu àndal te ku ànd ak yàlla du neex a nax moo tax naa Omar ibnul Xattaab daan wax naa lastu bil xibbi wala xibbi daaw ni nee na man je ne suis pas un truand mais truand mënumaa truandé nee na mënuñu maa ndax nee na loolu yombul de nee na truandé wu du ma truandé waaye kenn mënumaa truandé ju def ndax ma rek yàlla parce que ki ma àndal moo wóor mu suñu borom yàlla nee na kon ñoom li ñuy def seen kaw rek lay këpp yenn saa yi da ngay ay ree sax da lay jàpp nit de ñëw di la jéem a nax yow nga xam ni kii da jéem a nax xam nga loolu gën a garaaw. kon moom li muy def moom ci kawam lay këpp moom li muy def ci kawam lay këpp waaw di la nax te fekk ni moom xam na ni dalay nax waaye xamul ni yow xam nga ni moom dalay jéem a nax moo tax mu ne wa maa yaqdauna illa anfusahum wa maa nee na ñoom de seen bopp képp la ñuy nax waaye nag li gën a garaaw ci wax ji mooy wa maa yëguñu laa ilaha illa allah mbokk yi lu garaaw ngoog ci wax ji yëgul xam nga nit ku yëga di moom baaxul nit ku yëgul lu xew koo xam ne bu nit ñi nekkee ci jamonoy tàngaay mu dem sol ñetti chemise am te boo doole ca costume am karawaatu ba woo koŋ kooku yëgul wala mel ni ñun ñi nga xam suñu daraa yu rëy yi rek nit ñi nekkee ci tàngaay utooti si coton utooti si dara topp ci jesneer yi tegle ba di jog joggaaral yow yëgoo sax aw tàngaay yi ngi ci dëkk bi dangay romb ndeysaan ñu yabaatee ñi ndeysaan man dañ ma ko wax wax ba ma miin ko yenn saa yi ma romb ak sama yére ñu yow day sapeur a ngi lay wër déggal loolu yooyu la avant may xam loolu man dama daan sax jaaxle waa man lu ma def ba sapeur di ma wër ndekete yoo waxil la booba ñu ngi lay def lu bon te yëgu di la xamal ni la tàngaay wii nga jàppoo soo ko bawul yow ñàkk yëg gi nga yàkk yëg li ma lay jural léegi nga lakk te doo ko yëg ah mbokk yi ñàkk yëg baaxul de ñàkk yëg wa maa yashuruuna la yàlla wax nee na ñii nee na ñooy dañuy jéem a nax yàlla ak njiggam yàlla waaye nag xamuñu ni ñoom seen bopp rek lañuy ñuy nax waaye nag ah yëguñu ko lépp ci kaw seen kaw lay këpp walla wala yaxiqul makru sayyi illa bi ahli gis nga pexe mu bon du këppule ci kaw kenn loolu ca ka ko doon fexe waaw moom dong lay këpp ca kawam waaye du këpp ci kaw keneen yàlla di la wax nag ñii li tax ñu am melokaan bi borom bi subhanahu wa taala ni la fii qulubihim maradun allahu akbar yàlla nee na seen xol yi moo feebar mbokk yi ñetti xol am xol bi wér xol bi feebar ak xol bi dee dee ko vérifier nag yonent bi alayhi salaatu wasalaam daan na wax naan xol day xomaag comme ni weñ di xomaage ah saxaaba yi ni ko sang bi bu suñu xol xomaagatee nu ñuy def mu ni qiraatul quraani wa dikrul mawt jàng alquran ak fàttaliku dee laa ilaha illa allah xam mbokk yi bu ñu fàttaliku woon dee dinañ régler bu baax a baax a baax bari na jëf yu nit di jëf ñàkk a gëm ni te moo ne de dafay font rek day tay tay la sax waaye war na xam ne bis dina ñëw rek ñu takk ko sang ko jullee ko gasal ko bàmmeel jébbal ko boroomam dellu ñu bi ca kër naa ci dikk ci kanam mu ni yàlla ni fii bi maradun seen xol yi mu am feebar feebaru sikki sàkkaa leen dal ak naafiq moo leen dar waaw léegi tax lu tax nag mu jël euh, fii qulubi maradun jël baatu marad jox yó yóbbu ko foofu euh, achak sikki sàkk ci diine ak hypocrisie feebar la ndax loolu day oyofal sa diine da koy da koy da koy da koy néewal doole bu baax a baax comme ni ni feebar di néewal a doole sa yaram nit ku feebar da gis nit ku tolloon nu ko neex feebar dugg ko nga gis muy jeex di mel noo xamante ni dootul amati kattan buy jox dañ koy téye ndax mar bi ko topp feebar bi moo ko def loolu nanguwul a lekk ba day faible yan saa yi sax ñu yóbbu ko ñu xool ni kii dafa am dafa animé dafa lii dafa la parce que feebar bi moo ko jàpp fii qulubihim marad yàlla nee na loolu nag ñoom ñoo ko teg seen bopp ñoo sàggan ba feebar waaye moo tax it fazadahumullahu marad yàlla dool li leen feebar mooy bis bu jot ñuy gën a yokk ak kéefër gën a yokk ak naafiq naafiq dafa sonn naafiq dafa sonn ndax yéefar bi moom amul problème moom gëmul gëmaanul waaye naafiq moom day wane dafa gëm te gëmul yàlla ni fa zaadahum allahu yàlla dolli leen feebar borom bi nii walahum adabun alim gis nga naafiq yi dinañ am mbugal mu tar bi ma kaanu yakdibuuna ci sababu li ñu nekkoon di ko weddi ndax ñoom seen xeetu weddi moo gën a garaaw bu yéefar bi ndax yéefar bi gëmul gëmul waaye ñoom li tax ñoom ñu am problème mooy dañ doon feeñal ni imaan moo ne ci seen kaw fekk ni dañoo weddi loo tax mbugal moom méttee métti moo leen di xaar moo tax yàlla di la ko wax naan innal munafiqina fi darkil asfali minan naar naafiq ca kal ba gën a suufe ca safara la jëm ndax li muy préjudice yi muy teg diine ji mooy bari ndax kenn mënu ko ni doo jullit te du jëf jëfi jullit moo tax Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul nañ ci dikk si naa li da ko cee toroxal ba mu mel ni mbóot mu dey bis te dinañ ci dikk mu ni kon wolo walahum adabun alimun bi ma kaanu yakdibun waaw mbugal mu tar mu metti la ñuy am te li leen ko yóbbee du dara dara sababu loolu lu dul weddi gi ñu weddi woon borom bi subhanahu wa nii bokk na ci seeni dégâts ñoom ñooñu wa ida qiila lahum ñu leen waxee ni leen laa tufsidu fi l bàyyi leen yàq ci kaw suuf si yéen it yàq ji ngeen dëkke di yàq ci kaw suuf si yàq ci kaw suuf dafa garaw boo gisee yàlla ni wa id qaala rabbuka lil malaikati inni jaailun fi l ardi xalifa dinañ ñëw ci si loolu qaalu atajaalu fiha man yufsidu fiha yi ñoom dañuy wax ni nit dafa yàq wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bi hamdika wa nuqaddisu lak qaala inni alamu ma la taalamuun dinañ ko jot léegi bala ñoo sore ci saar bi mbokk yi gars yi naafiq yi bunnee leen sëñ bi bàyyi leen yàq gii ngeen di def ci kaw suuf di weddi di néewal doole alquran ak lislaam bàyyi leen ko kenn du leen gën a rëy làmmiñ xaalu dañ naan innama nahnu muslihun ñun de wax dëgg yàlla yàq taxu ñoo jóg dañuy defar ñun ñu bëgg a defar lañ ñu bëgg di yéwénal lañ waaye wax dëgg yàlla ñëwuñu fi pour yàq bu leen waxee yéen ba leen seen yàq gi ngeen di def nga gis benn nit ci famille doon seytaane rajim boo xam ni famille ba saa yu amee problème moom la mooy jaxase rek di jaxase te kenn mënu koo génne ci famille bi ndax ci la bokk soo ko ne sëñ bi yow bal mbokk gi ngay tas bal ñu waaw wallaay yàmba ko fa bëgg a jiiñ waaye man moom defara ma tax a jóg fekk ni waxul dëgg defar taxu koo jóg yàq ak tasaare nit ñi moo ko tax a jóg loolu na li naan wax innama nahnu muslihun ñun de wax dëgg yàlla dañuy defar rek ak mbaax ñu tax a jóg waaye ñun bugg ay julli lañ comme yéen kon waru leen ñoo taxe naan ñu da ngeen di yàq yàlla ni ala ñoom bu ñuy nax lam leen wax nu yuqaadicuuna allah walladina amanu la yàlla fii ñalar fii ala waawee innahum ñoom ñii humul mufsiduuna <coughs> ñooy yàqkat yi waaye walakin laa yashcuruun malheureusement yëguñu dañoo yëgadi baat ba dikkati na de yàlla dina yëguñu ñoom ñooy yàqkat piir yi waaye yëguñu ni sax ñoom ñu ngi yàq ñu ngi yàq fekk ni euh, tool bu ñu dugg ruur ko yàq lépp jur sax jur gu dugg ci tool ni ñuy ruure toolu jàmbur bi ñoo tane naafiq bu dugg ci biir lislaam li mu ci yàq day yàq lu bare bare bare ndax mënoo ko mënoo ko ci génne waaye bu jëfee nga xam ne jëfu ko bon la jëf te mënuloo ko dara ndax dafa déclaré lislaam yàlla nee na xamuñu loolu di borom bi subhanahu wa ba léegi bàyyiwu leen ñoom naafiq yi mu ni wa ida qila lahum aminu kama amana annaas nee na ñoom de bu leen waxee ni leen gëm leen comme ñi nit ñi gëmee bu leen waxee loolu yéen ba leen seen yii naafiq ngeen torop te bon jéem leen a gëm comme ni nit ñi gëmee qaalu anuminu kama amana sufaha dañuy naan dañuy tànnam waaw waaw waaw ñun ñu ak yéen bokk gëm gi waaye bu ñu wéeteen waaye waay mbéj ñi daal ñoo ñi ñoo soof loolu la ñuy wax jullit yi ñi daal ñoo yabaate ñun ñun dinañ gëm nga xamante ne mel na ñu yemba di gëme ala waawee innahum ñoom ñii humu sufahaau ñoom ñooy ñi yemba di ñoom ñooy ñi dese walakin laa yaalamuuna waaye xamuñu ah mbokk ay bii day waxtu wee jeex mais mënuma koo bañ a yaatal moo tax dañ ci teg suñu baaraam suñu ñëwee dellu siwaat si muy treizième verse mooy wa ida qila lahum bu ñu leen waxee ni aminu kamaa aman nas gëm leen comme nit ñi nit ñi gëme nit ñi correct ñi xaalu ñu naan ñu weet naan anu aminu kama na sufa ala innahum sufa walakin la yaalamun ñoom loolu lañ doon wax lii may waral leeral ci aay bi dafa bari waaye waxtu wi dafa jeex dàbbandi ma fi ne fii rek nga mën a yem kon dañuy teg foofu suñu baaraam su ñëwee sof li ñu sosoon yàlla nañu yàlla defal dégg ak topp aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa li saa'iril muslimina fastaghfiru innahu al-ghafur rahim wassalaamu aleykum wa rahmatullah